Sud FM xibaar salaamaaleykum mbokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante ko lu rek gi kuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu ci ak suñuy diwaan juróomi waxtu moo jot ca Medina Cheikh bisimila ci xibaar yi. Ah, lu doy waar la xew ca foofe ca Kédougou ak soxna soo Sosek ah, la mu doon rek indi ah, di doom ja daal di nag faatandoo gannaaw ba nga xamee ne nag ñu ngi ko doon rewle mbir mi nag indi na coow lu rëy ca Kédougou tax ñu ngay xaarandi ñoom ñëpp li nga xam ne mooy résultat résultat bi bàyyeekoo ci euh, autopsie boobule ndax wàllum négligence la euh, lu mu ci mënti rek euh, doon kii di gynécologue ba ak anesthésiste ba ba ci infirmier ba daan nañ leen rek téye téye néggandiku dinañ ci dukki ci ndorteelu xibaar yi lay doon accident bi daal di nag am itam ci ponk wax sa xalaat dina ci daal di bokk yooyee di faral di am ci mbirum kër docteur naka la ñuy def ba daal di koy saafara ci mim réew ndax la mu am atum ren jàpp daaw daanaka nag lim gi bari na lool ponk bi ci wax sa xalaat lay doon accident bi ñu daal di nag nemmeeku ca Taïba Ndiaye foofee itam am na beneen soxna ba ñu daal di dal ba mu jaare fa nag ñàkk bakkanam askan wa fa fare nag yuuxu nañu ne daal euh, manifester ngir rek mbir moomu la mu fay daal di nag am beneen bi mooy wàllu nag inondation yi di taw yu bari ak la mu indi ci jeexital waa Jurbel mucc ñu ci ndax ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay kër daanaka ndox mi daal na koy rek euh, moome muy situation bu doy waar ñoom itam ñu ngay wut ko leen di nag euh, pompel foofa ca kër dinañ ci daal di jukki Sangalkam moom lu ñuy jooy mooy barab yu bëri li ci mel ni euh, quartier euh, Daaru Salaam ak Daaru Cubb yëpp ndox mi daal na koy moomee ñu ci bari ci l'école yi lañ leen di nag euh, yóbbu te école ngi dem nag ci ubbi looloo tax adjoint maire ba dina nag faaw ñu daal di fexe jukki laata ubbiteg lekool bi inondation yeeg ubbiteg école googu mooy doon ñaareel bi laata ñuy daanale nag ak wàllu politique gi assemblée nationale gannaaw ba nga xamee ne coow li aju ci groupe parlementaire yi daal nay rek fausse composition la aju ci wàllu nag groupe parlementaire rawatina ci quatorzième législature bi moom la ñuy daal di jukki ñu ciy bëri jàngat koté tey jii xam leen ne daal dañoo bëgg a tong tong assemblée nationale naka ngeen ko jàngatee ci njeextalal xabaar yi ñu ubbi antenne bi Pape Laye Dieye ci sottandikukaay bi faram-fàccee Guinness Kiss lay. Euh, ci kàddu gi mbokk yi gannaaw ba nga xamee ne nag ab soxna euh, daal nay faatu gannaaw ba nga xamee ne nag mu ngi doon mucc foofee ca Kédougou euh, mbir moomu nag jur na fab coow bu rëy ba jamono ji nag askan wax Kédougou yëpp ñu ngi daal di xaar résultat yu bàyyi ko ci autopsie bi nga xam ne santaane nañu ngir ñu daal di koy nag def ci circonstance su faatu googule ñu ci bari jàpp ne nag wàllu ñàkk wekk la wala ñàkk toppatoo la ñuy wax négligence lu mu ci mënte doon gynécologue ba ak anesthésie ba ba ci nag kii di infirmier yi ba ñëpp la ñu téye coofee ca nag wàllu yoon ñu daal di ci ubbi gu euh, Kédougou Boubacar Tamba. gynécologue beeg anesthésiste bi ak ki nga xamante ni mooy infirmier bi dëmb ba fi ñuy àddu ñu ngi garde à vue fi nga xamante ni mooy gendarmerie territoriale bu gu te xibaar yi fa xusee xamal ñu ni parquet bi dafa laaj autopsie ngir ñu mën a leeral anam yi nga xamante ne moom la ndaw sekk doom ji ñàkk seen i bakkan tiis bi ni mel la gu yëpp di waxtaane ndax askan yu fa dëkkee jàpp nañ ni bakkan buy mucc ba faf ñàkk bakkan waroon nañ ko mën a weesu jamono ji ñu toll nii mu am nag ñu jàpp ni anam ya intervention ba amee moo xaw a tey seen xel ñu fàttali ni ba mbir mi xewee kii di jëkkëru soxna si mu jëbal procureur bi plainte naka noonu la kookee laaj ñu ubbi ab l'enquête fi ñu toll nii résultat enquête yooyu ak li nga xamante ne mooy bu autopsie bi la ñëpp di xaar Boubacar Tamba doon cee ko fii ci Tambacounda rajo Sud Boubacar bokk na ci ponk wax sa xalaat yi li aju nag ci ñàkkum bakkan yeeg yooyu ñuy lay faral di tuumaal ña cay liggéey teg loxo ba ñu daal di nag def ci ñoom kaa bu mujj bi soxna sooso eh, ca Kédougou ci la daal di nag eh, bokk accident beneen daal di am ca Kër Maal ca commune bu Taïba Ndiaye ca Tiwaawan la foofee ab soxna itam la camion daal dal ci kawam moom bi yeboon eh, ba mu fees ab nag suuf muy situation bi nga xam ne askan wa daal nañ cay mer lool ba tax sax ñu daal di manifester Tiwaawan Babacar Sow njombe amatina ci tali bi diggante Taïba Ndiaye ak Tivaouane Carrefour dëkkub Kër Male la ab ndaamar boo xam ni bii dafa yab suuf daal di faat fi saasa benn soxna soo xam ni da doon traversé ngir dabi benn clando bu ko doon yóbbu ca Fass Boye camion bi ñu immatriculé TH 29 25 B te xale bu ndaw doon ko dawal dafa daal di mbëkk soxna si diri ko lu yàgg ba sax ñuy laaj ndax camion bi amoon na frein wala déet ndaxte dem na ba sori soog mën a taxaw di lu metti loo xam ne lii nemmeeku nañ ko ca bërëb ba ndaxte soxna si yaram bi dafa yàqu arrête ba kenn mënu gis li nga xamee ni moo di accident boobu chauffeur bu ndaw bi nga xamee ni moo doon dawal wote bi askan wi génn ci dëkk dëkkaan yi dañ ko mujj jàpp xaar ba gendarmerie ñëw ñu daal di leen ko jébbal sapeur pompier yi ginnaaw bu ñu yégee li ni mel ba gendarmerie def constat daal di nañuy jël li desoon ci yaramu soxna soosu ngir yóbbu ko ci morgue l'hôpital maam Abdoul Aziz Dabax bu Tivaouane ñuy fàttali altine bi ñu weesu ab taxi dañoo génn ni dañuy daal di defar benn doodaan foofee ca Carrefour Kër Malick meeru dëkk bi Assane Ndiaye ba mu ko yégee daal dina sol dàllam ànd ak kilifa gi ngànk ndogali ci wàllum liggéey réew mi ngir waxtaan ak askan wi nga xamee ni dañu bëggoon baare yoon yi ngir wone seenu mettit tii va wan Babacar Sow ci jokko ak yéen fii ci Taïba Ndiaye Sud FM Sud FM wàllu inondation yi coow li jeexagul ca kër Baye Laay ca Jurbel foofee lu war a toll ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay kër yëpp la ndox mi daal di nag euh, yàqate ba tax nag muy situation bu doy waar rax ci dolli itam amul benn action bi nga xam ne nag euh, taxaw nañ leen ko foofee euh, ba tax ñuy sàkku ay moto pomp yu ñuy daal di nag jëlee ndox ma foofee ca diwaan boobu di kër Baye Laay askan wa nag nee ñu autorités yi ñu ngi leen di interpeller Jurbel Adama Ndiaye. Daaru Salaam Kër Baay Laay moo fees del ak ndox ginnaaw taw yu mujj yi nga xamante ne rot na fii ci njaareem Baba Faye notable dëkk ci quartier boobu. lu matu 27 28 daal ñoom ñëpp ñu ngi ci biir ndox mi jafe-jafe yi mooy canal yi dañ koo gas ba jub di diggante bi même pas 500 mètres ñu tëb ko loolu moo indi jafe-jafe ndox mi day génn du ñëw ci kër yi. ndoxu taw yooyu nag yàq nañu ay fosse septique madame Awa Cheikh Dieng bokk nañ. ci ñu yàqule. foos bi màbb na nga yor ay xale yu ndaw ay tuut tànk fi mu toll nii pot nga leen di tegal ñu siy dem wanag bu guddee ngay dugg si kër jàmbur yi di ko fa tuur booy dem si kër jàmbur yi ngay demee wanag côté douche bi ñu mewun faa jaar ndax foofu yëpp dafa nooy xale yi jamono yi ñu ngi foye ci ndox mi nga xamante ne ndoxu taw mi la ñoom ñu jàpp ne kilifa yi kenn newu leen massa te it jëluñu benn motuwaay ngir saafara jafe-jafe gi bindan nañu préfet bañ jëjël suñu filiation ñun ñëpp waaye ba léegi saafara moom amagu ci ba léegi kër Baye Laye moom daa mel ni dañ leen a fàtte moom gisuma benn autorité bu fi ñëw ndax Antoine Diome nee nañ ma ñëw na fi ñun ñu koy xaar pour mu ñëw yemul foofu chapeau la yem ñi yorey bitig am nañu jafe-jafe Fatou Sène ca la bokk ñuy ñaan état bi nag mu dimbala ñu ñëw wallu si ñu parce que sonn nañ trop waa suñu bagage yëpp yàqu nañ dañuy teg si biir ndox mi di togg suñu doom yi di xuus feebar yi dafa bari yooyu dafa bari ñuy woo état bi ngir yàlla. kër Cheikh it foofu yàqu-yàqu yi am na fa loolu la délégué bi xamle. maa ngi tudd Jili Ndaw maay délégué de quartier Pikine mbedd yi doo am foo jaar kër yi dafa taa. ba bagage yi bari yàq sama côté bee ma nekk man amuñu moto pompe la ma fa recensé daal onze maisons yoo xam ne recensé naa ko yoo xam ne dañoo indoon ñi yàqule nag fii mu toll ñu ngi ñaan taw bi nag wàññeeku Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Adama ñuy desandi ci ndax kaam itam foofu lay fi wulee ñaay ñaari quartier yoo xam ne yëpp ñu nga ca biir ndox ma euh, quartier Daaru Salaam ak Daaru euh, sinistre yi nag mooy ñi ca loru dañ leen yóbbu sax ca l'école ya ngir ñu mën faa daal di nag euh, dal école yooyu nag faaw ñu waajal ko ci ubbi teg l'école bi ñu jëm tax municipalité bi ak armée bi jamono ji ne ñu ñu nga ca terrain ba di ko daal di nag tàmbale defar dañ ciy teewlu adjoint maire bu Sangalkam di Jibi Ndiaye ci micro Mame Diarra Da Silva. waaw situation bi moom situation bu metti la. parce que am na ay quartier lëm fii boo ñëwee Sangalkam ay Daaru Salaam ay dëkk yu mel ni ay Daaru Cubb ak Noflaay dëkk yooyu moom li ci ndox mi jël dafa bari. donc euh, taw bi jiitu woon jamono yi la passé déjà jotaguloo woon dem donc bu ñu ci boolee volume ndox bi wàccaat dafa gën a mettil situation bi. léegi am na ay mesures yoo xamante ne municipalité bi mu ngi koy jël daaw def une reconnaissance ba pare déployer moyens yi mu am donc euh, ay pompes yu xaw a am doole euh, avec aussi le soutien de l'armée ñu déployer ay pompes électromécaniques yoo xamante ne dañ ko fi ñu ko teg région de fi mu daan tam aw bon remarqué nañ aussi fi ndox mi daan tam aw quand même am na ci am na lu ko obstruer yenn saa ci dëkkuwaay yi lay doon am na lu ko baare maanaam yenn saa ci dëkkuwaay lay doon loolu dafa laaj budul nawet bi pendant période noor nit ñi def ay solution yu investissement yu am doole pour que ay canalisation mën a am pour ndox mi mën a fi muy jógee a partir de Somone Ndayane di ñëw ba ci commune bu Sangalkam mu mën a rejoindre yoon bi ñu doon wax fleuve bu yàgg bi nga xamante ne moo amoon fii di dem la Grosse nee nga aussi soxla ngeen investissement pour mën a libérer école yi avant la rentrée. waa ouais, effectivement parce que ndox mi quartier yi mu jël ay nit ko dëkkee woon nit ñooñu tey face à l'urgence fi ñu leen logé mooy ci école yi euh, ci centre polyvalent yi ci CEM yeeg yooyu donc tey a un mois de la rentrée euh, déjà am na taxawaay bu bu nguur gi wala commandement territorial ak municipalité war a am seen seen wet loolu am nañu au niveau de la municipalité en tout cas loolu ñu ngi koy def pour que ñooñu déjà fi ñu nekk ñu mën leen jàppale ba pare mën gaaw fi ndox mi nekk ci seen kër yi mën a génn pour que ñoom ñu mën a dellu sinon bu situation bi perdurer loolu day am impact ci rentrée classe prochaine yi parce que fi ñu nekk foofu la nit ñi war a jàngee ñu daal di wax ci yéex-yéex bi am nag ci tàmbale formation bi foofa ca centre national aviculture bu jam ñaajo tax na fédération nationale bi ëmb ñooñee di yëngu ci méccam euh, yarum ganaar euh, di ci amee tiitaange président ba di Pape Bakary Koli moo ngay fàtte ne atum 2021 juin ba léegi la barab ba daal di noppi ba tax mu ngi interpellé conseil administration bu IPAS ak ministère bi ñu denk wàllu xëy mi ak formation euh, ngir ñu daal di ubbi buntu yi centre formation boobule Bakary Koli ñu déglu ko ak Xabsa euh, Elimane woon tabax bi door na si 2017 jeex euh, juin 2021 fàttali ni juin si lañ joxe caabi yëpp ne centre bi pare na mën naa tijjeeku boobu ba léegi nag centre baa ngi toog ñu tëj ko kenn nekku fa dara newu fa kenn def fa dara donc euh, matériel bi yëpp à pour cent livré nañ ko ba pare donc lii tee centre bi dox ba léegi ñun moom moo ñu jaaxal te ñuy fàttali ni en am na benn appel d'offre bu ñu defoon du candidat yu bëri soumettre nañ ne kooku moo apte pour guider centre bi kooku depuis muy superviser travaux yi di fa dem guddeeg bëccëg noor nawet superviser lépp ba centre bi jeex ñu ne ko yow mënatoo diriger centre bi ndax ay prétexte yoo xam ne kenn mënu wax euh, lu mu doon donc euh, loolu ñun lañ jugé que ni c'est pas sérieux c'est pas normal te ba léegi kenn mënta expliquer lan moo waral ñu tëj ko ñun loolu lañ jàpp ni loolu jaaduwul beneen mbir bi mooy ñu xool li nga xam ne boo xam ne mën nañ auto entreprendre centre boobu ñu tëj ko te kenn ba léegi kenn mënul wax lan moo xew loolu ñun dañ koy ñaawlu dañoo jàpp ne du lu rafet bu weesoo loolu ñuy interpellé conseil d' administration bu cluster agriculture nga xam ne kàddu gu mujj gi ñoom ñoo ko yor ñu jël seen i responsabilité te xam ne kat centre bi buñ ko tëjee ñu ngi handicapé ay ndaw yoo xamante ne mooy loolu li ñuy wax centre ba nekk na naa foo xam ne kenn newu fa dara newu fa matériel bu ñu livré depuis un an presque léegi mu am un an et demi bu yàggee kat mu commencé yàqu te bu yàqu amoon nañ ko ba pare donc li ñuy ñaan mooy centre bi tijji ndaw yi mën faa dem ku nekk mën faa jëlee xam-xam ji ci war la ñuy daal di nag euh, indi ay tontu ndax cours yi ca centre boobu dina door ci weeru octobre bi foofu ca Diamniadio loolu nag coordonnateur cellule euh, étude ak planification bu ministère emploi moo ko daal di nag euh, xamle moom El Hadji ngoom wax ne yoon yi ñu waroon jaar ngir def appel d'offre ci kan mooy nekk directeuru structure boobu noppi na jamono ji ñu ngi ci recrutement personnel bi El Hadji ngoom ñu déglu ko ba tey ak Adja Habsa Iliman waaw centre bi ñu ngi ko mais dafa nekk centre bi nga xamante ni melul comme yeneen centre yu nga xamante ni moom la ñu yore ci Sénégal nga xamante ni état du Sénégal à travers la fonction publique moom mooy recruter ay formateurs di recruter personnel administratif affecté ko fa nekk centre bi nga xamante ni état du Sénégal moom moo décidé euh, ci jaar ci monsieur Dame Diop mu nekk sunu kilifa sunu ministre de l'emploi et la formation professionnelle mu décidé lëkkaloog le secteur privé euh, national pour que formation yi ñuy def ci centre bi mu mun a méngoog bëgg-bëgg bëgg-bëgg euh, secteur privé boobu donc ñu ànd si ak ñoom ñu ni donc kon dañuy lancer appel à candidature pour que le personnel administratif bi nga xamante ni ñoom ñoo fay nekk mooy euh, ñuy gérer centre bi ak aussi ñi fay jàngale ñoom ñëpp dañuy subir benn dañuy dañuy def benn recrutement appel à candidature fu ma lay waxee ni ak yow appel à candidature directeur bi ak euh, responsable administratif financier bi ak responsable pédagogique bi def nañ ko ba pare donc euh, jeex na ñu ngi ci contractualisation bi et puis commencé nañ recrutement formateur yi donc ministre Dame Diop jox nañu ndigal pour que ñu def tout pour que mois d'octobre ouverture des classes centre bi mën a fonctionnel et incha allahu rabbi ouverture des classes centre bi dina ubbi ñu daal di wax nag ci waa Revas ñi nga xam ne nag wàccaayu màggal gi euh, tax na euh, ba ñu daal di amal ab ndaje xibaar yi euh, ndax gam màggal gi nga xam ne fukki fan ak juróom lañ ko daal di nag jàpp ñoom nag nañ koy defee at bu jot ñu ngay waajal seeni nag bopp bu ko defee programme dépannage bu kenn dul fay dara bi ñuy faral di def ren ñu defaat ko itam ñoom rendez-vous bu mag bu nga xam ne wàllu diine lay yëngu yëpp dañ ciy daal di dugal seeni nag loxo war a toll ci juróom benn téeméer ci ay nit daan nañ leen rek dajale ci Sénégal gi yëpp bu ko defee di diirub euh, juróomi fan ñu daal di gunge ñiy dem ak dikk ci màggal googu Ali Diallo mooy président regroupement euh, vrai artisan yi yëngu ci wàllu automobile Sénégal ñu teewlu ko ak Adja Ndeye Maram Ndiaye revanche mu ngi ci territoire Sénégal yëpp fépp foo paan ci territoire Sénégal fépp foo paan soo wootee rek ñu dépanner la gratuitement su màggal gi jotee cinq jour la nag deux jours avant deux jours après muy cinq jours di wax ni chauffeur yi bépp chauffeur boo xamante ni paan nga bu ko sooxaale dëkk boo dem rek relevance nationale mi foofu boo kiiyee dinañ la dépanner comme ni ko région yi waxee rek soo gisee ndaje mi am solo dañoo bàyyi kenn ku nekk dëkk bi nga nekk nga wax jafe-jafe yi nga am ci dépannage gratuit mooy bu ñu nee jàppale ñun mën nañ joxe suñu doole ah mën nañ joxe suñu xam-xam waaye jumtukaay yi nga xam ne moom la ñu war a liggéeyee yëpp ñu ngi ci tàllal loxo état di ci tàllal loxo président de la république ndax nag président wax nañu ko bi mu ñu recevoir nee na dinañu jox ay oto ñu ngi koy ñaan moom ci déclaration bi pour vraiment balaa ñoo dem màggalu Touba pour président mun ñu jox oto yóbbu ko ci màggal xam nga mobilisation élevage au niveau national mën naa ne léegi cinq cent personnes lañuy ñuy génne mu ëpp six cent ndax région bu nekk yow yaa xam effectif bi nga xam ni dang ko war a génne pour gérer sa région mais ñun Dakar fii chaque année gis nga bis yooyu taxaw ñaari bis ak ñaari pick cent cinquante personnes dinañ leen jële fii yóbbu leen région bu nekk dina jël plus de cinquante personnes nekk sur le terrain sensibilisation yemul si communication REVAS mooy comme yéen ñëw wax ak yéen am suñuy groupe WhatsApp wax ci li nga xamante ni loolu la ñuy wax nit ñi ñu préparé loolu daal la sensibilisation moom ci foofu lañ ci yam mooy ci wax ak yéen ak def ay audio mu jaar ci groupe yi dem ci Euh, ñu daal di nag euh, wax ci wàllu CHAN bi CHAN 2023 Guinée Sénégal bi nga xam ne ëllëg lay doon ca Bamako gaynde yi nag euh, ñu ngi entraîné wu tey jii ci ngoon ca stade Modibo Keita laata loolu nag ñaari entraîneurs yi jàkkaarloog taskatu xibaar yi ki nga xam ne nag mooy entraîneur Aliou Cissé dem na ca Bamako bu ko defee jàppale gaynde yooyu nga xam ne ñoo fas yéene amal jongante bi ñu jàpp ne daal bu am solo la ci équipe bu Sénégal Odile ngi ci la. jongante àjjuma bu suba bi gaynday loko yu Sénégal yi gannaaw ndam bi nga xamante ne amoon nañ ko ci manche aller bi fii ci suñu biir réew ndawu pap caw yi nag daañu dem ca Mali fekk fa sélection guinéenne bi nga xamante ne ñetti yoon xañ na Sénégal qualification ci CHAN bi mu doon jongante boo xamante ne gaynde yi faaw ñu ànd ceeg agressivité bu ñu sukkandikoo ci ancien international sénégalais bi di Cheikh Sidi Ba. équipe bu pare pour xeex ak guinéen yi équipe boo xam ne dafa conquérante équipe boo xam ne dafa agressive équipe boo xam ne tam sur le plan offensif nañu wane lu ñu lu ëpp lu ñu gis lu gën lu ñu gis match aller bi parce que kaw sur le plan offensif on est resté sur notre fin gisuñu lu bëri wane ñu lu bëri heureusement alhamdulilah la ñu wax. ba ñu dugalee jut boobu contre le cours du jeu mais guinéen parce que seen gardien ko kenn senti ko kenn gisu ko kenn remarqué si match kenn xamul lan mooy mais ñu respecté adversaire bi dem nag pour euh, xam ne que du match bu yomb match boo xam ne que duel yi dina bëri xeex bi dina bëri au niveau du milieu de terrain ak yeneen yi ñu nekkagum ci kanam nag rawee benn but ñii di waa Guinée gaynde locaux yi nag ngir ñu génn ci match bi li ñu war a def mooy fexe ba lépp luy profondeur ñu téye ko Cheikh Sidi Ba ñëw ak ci match bi avec beaucoup de sérénité mais avec beaucoup d'humilité aussi il faut que door ci xam ne que rien n'est encore joué et que ñu ñëw fekk adversaire bi et ne que tey jii c'est un autre match match bi passé aller bi passé tamit jàll na muy suñu gannaaw léegi match suba bi moo et que tey suba moom ñu reyante gagné bataille du milieu bi efficace devant sur le plan euh, occasion ñu am ñu jéem ko dugal et derrière ñu am solidité défensive pour mën a contenir assaut assaut guinéen yi gagner duel le plus de duel possible et que surtout sur le plan offensif ñu efficace jéem a dugal benn but wala ay but pour mën a assurer qualification bi incha allah. ci fàttali si li national local bi dina dalal gaynde locaux yu Sénégal yi suba ca Bamako ca Mali gannaaw ba nga xamante ne Guinée amul benn stade bu fa kaaf homologué. Guinée Sénégal googu nag euh, ñetti arbitre réew Mauritanie ñoo koy daal di nag euh, taxawal euh, Sénégal nag match aller bi moo gagné woon benn bal ci dara ñaari confrontation boobu nag kii gagné mooy daal di qualifié ca CHAN ba ñuy amal ca Algérie janvier vingt deux mille vingt trois jeexaleeg bi nga xam ne nag dina jeex ci alxemes gi bu vingt une heure jotee tey ci guddi kon ci temps universel bi Abdou Diallo Leipzig la jëm Idrissa Gana Gueye Everton Bamba Dieng ji waxtaan nag ay club ngir am fa mu daal di nag euh, dugg waaye kii di Nampalys Mendy ba léegi mu ngi ci ban remplacement bi ba tax nag euh, suñu naataango di jàngat euh, bii de nag xar kanam mu joueur yi ñu daal di koy nekke moom Salif Diallo ñu déglu jàngatam ak El Hadj Malick Ndiaye. waaw amoon nañu jaaxle si loolu quoi parce que quand boo xoolee équipe bu démarré woon finale Coupe d'Afrique bi Euh, à un certain moment pratiquement cinq ou six joueurs amul club mais léegi boo xoolee bu baax équipe bu démarré à part Salif Ciss boo xam ne club te mun na signer fu ko neex parce que ah, free agence la fu mu nekk ne amatul contrat benn club donc mun na signer fu nekk donc ñeneen ñi yëpp euh, dañuy bon am nañu club ñu ngi joué même su doon Nampalys Mendy moom fu mu nekk nii bon moom joué lu bëri quoi tekkul titulaire euh, Leicester mais avant Coupe d'Afrique bi amul nekkuloon titulaire club donc vraiment amoon na njaaxare au départ mais actuellement alhamdulilah affaire bi mu dem comme ni ñu ko bëggee c'est-à-dire que am nañu euh, benn dem na signé Everton si championnat boo xam ne xam na ko si boo xam ne am na ko euh, Diallo Abdou Diallo dem na dellu na Allemagne euh, championnat boo xam ne xam na ko donc macha allah léegi kay Franck Ndiakhare bi bon mun na dem man avant même après Coupe d'Afrique bi day naa nee naa gars yi actuellement bon kenn bu mu xalaat ne champion d' Afrique yëpp nañu dellu euh, dinañ dem coupe du monde euh, am na ay joueurs yoo xam na ñu ngi ñu ngi ñu ngi joué ñu ngi wane lu baax actuellement euh, Aliou Cissé mënul tëj mënul tëj bëtam yooyu par exemple mun nañu wax Pathé Ciss boo xam ne mu ngi ay Upamecano am na benn arrière gauche boo xam papa papam il est originaire de Nioro muy football Monaco AS Monaco arrière gauche la kooku moom xam naa nañ ko bàyyi xel Mory Diaw tam gardien titulaire la actuellement Clermont bokk nañ c'est le seul euh, gardien sénégalais bu nekk titulaire ligue en française donc nga obligé euh, obligé kii dafa nar a bàyyi euh, bàyyi xelop bàyyi xelop su ñooñu Euh, Pape Lay ci la dikk nag ci ganu xibaar yi jàngat rek wàllu assemblée nationale ci li aju ci wàllu nag groupe parlementaire Sud FM seen rajo daal di nag dellu si ci doxalin googe ci assemblée nationale xam ne jamono jile daanaka mooy coow li solo bi nga xam ne am na ko groupe parlementaire à enjeu e ci aju rawatina ci jamono nag quatorzième législature bi honorable député Cheikh Bamba Dièye mi bindoon ab téere euh, duppee ko nag parlement sénégalais bi di assemblée nationale diggante. deltu gannaaw ak coppite yi ca war a nag am ba ci enjeu yi dellu si na nag ci solo yëf yi waxtaanam nag ak Amadou Moustapha Dia. honorable Cheikh Bamba Dièye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay yow nekk nga ñaari yoon député ca pencum ndaw réew ma euh, yaa bind téere bi ñu dippee euh, le parlement sénégalais entre régression et devoir de mutation tey ñu waxtaanee lépp jëm ci wàllu groupe parlementaire d' abord ñu bëggoon xam lan mooy groupe parlementaire ci euh, pencum ndaw réew ma ak nan lañ koy taxawalee. xam nga groupe parlementaire dafa di ab tëralin boo xamee ne dafa ko dugal ci li nga xamee ne mooy règlement intérieur assemblée nationale muy kuréel boo xamee ne day permettre ay député yoo xamee ne ñoo bokk parti wala ñoo bokk coalition wala bokk ñoo bokk yoonu politique ñu mën bu ñu yeggee assemblée nationale seet nan lañu ñu mën a dajaloowee si seen bopp tudde seen bopp groupe sangam groupe boobu li tax mu am solo moo di boo ko xasee ba créé daf lay may ay sañ-sañ ak ay position ak ay cër yu am solo ci ni nga xam noonu la assemblée nationale di doxee dina la mën a permettre benn nga nekk ci euh, euh, euh, réunion des présidents bokk ci bureau assemblée nationale am vice président wala am ay président de commission am ay ay ay secrétaire élu et cetera ba pare am président de groupe parlementaire ak vice président au groupe parlementaire te benn boo si jël ci yooyu. dafay ànd ak ay cër ak ay taxawaay yoo xamee ne dina permettre groupe bu député yooyu nga xamee ne dañoo boole seen bopp ba tuddee seen bopp groupe sangam ñu mën a am cër gu mat am taxawaay gu am solo li nga xamee ne mooy fonctionnement wa assemblée groupe parlementaire boobu ne ci wàllu lim naka la ko yoon tëralee ñaata nit nga war a am pour am groupe parlementaire ak ndax ci histoire ci taarix bi soppite amoon na ci wàllu lim boobu. waaw xam nga euh, groupe parlementaire moom dañu ni foog nga am fukkeelu député yi assemblée nationale maanaam foog nga am fukki député ak juróom-ñaar pour mën a am groupe képp koo xam ne dajale nga fukki député ak juróom-ñaar lu ko ëpp moo mën a toll rek am nga sañ-sañu bu la neexee nga déposé ci li nga xamee ni mooy assemblée nationale pour former ce groupe c'est important parce que cër woowu ma lay wax ni la moom la groupe parlementaire di am moom la pouvoir bi di xam ba nga xamee ni bu doon a sagoom kenn ku dul moom du fa am cër du fa am taxawaay bu ko defee temps de parole yi ñoom ñoo koy ëppale pouvoir ci biir assemblée nationale ñoo koy ëppale donc sañ-sañ yeeg dogal yi di ci ëpp ci seen côté lay féete kon bu demee noonu histoire Sénégal wan nañu chaque fois daan ñu fexe soit bi yokk nombre bi pour empêcher député yi ñu mën a di bañ a regroupé wu wala bo yi ñu koy wàññi pour facilité député yi ñu mën a ñu mën ki créer ndax politique gu Sénégal dafa tëre di lool ba nga xamee ni selon ni nga xamee ni ki jiite ci bopp nguur gi noonu la jàppe ni noonu la war a doxalee opposition noonu la leen war a maye ay cër wala noonu la leen ko war a xañee si lay organiser woo tel que assemblée nationale ak règlement intérieur bi di yëkkati wala di wàññi nombre bi nga xam ne moom la ñu soxla ci jëm ci assemblée nationale pour mën a former groupe. justement groupe parlementaire instrument bu am doole la na nag ci parlement bu yees bu ñu war a installé ndax fu mu nekk ni gis nañu lim bi. xaw nañoo am gam-gamloo la mooy nekk enjeu wu am ay groupe parlementaire ci installation parlement bu yees bi la quatorzième législature bi. assemblée politique la. Euh, sa doole moo jox cër foofu. ku nekk li nga war a njëkk a mooy. nga fexe ñi nga xamee ne yow ak ñoom yéen a boor wala yéen ak yow ñoom yéen a bokk yoon wi ngeen di jaar wala yéen a bokk coalition wala alliance bu leen indi assemblée nationale ngeen jéem a góorgóorlu dajaloo taxaw te am nag beneen ngaañ bu nekk ci biir ci règlement intérieur bi dañu ni boo xasee ba bokk ci benn groupe boo démissionné rek dootoo mën a ci bokkaat ci beneen groupe kon li ngay man mooy dem nekk ci non inscrit loolu moo tax dajale groupe bu mag a mag a mag boo xamee ni nit ñi dañuy am rek ni ñoom rek opposition la ñu bokk ñu dajale ci dafa bëri risque ndax tey jii opposition yi wala politiciens sénégalais yi am na ni li leen jubale tey jii bu subaa moo leen di tàqale ah, mën nañu wax ni ñoo àndandoo fii ñetti fan wala sa ngoon sa nga dégg ni tasaaroo nañu ko nekk dem na ci yoonam donc pour éviter risque boobu man sama xalaat li ma jox moo di que ni jàpp naa ni groupe opposition bi yëpp dañoo war a jéem a góorgóorlu jéem a former ñaar ba ñetti groupe parlementaire suñu ko mënee ko defee ñi ñoo gën a jege bu mu wér ci fii ñii li leen di teqale dina jafe loolu ñoo ñooñu former base bu solide boo xam ne dinañ mën a am groupe boo xamee ni gën a mën a des ci assemblée nationale aussi longtemps que législative bi di am bu ko defee dinañu mën a éviter perturbation yi la ñu mën a éviter jënd yeeg jaay yi parce que gouvernement wala politique moom du mas dañ ak jéem fexe koo xamee ne bokk na ci benn kuréel nga jéem a seet noo ko roccee rocci ko rocci ko ba wàññi ko ndax gis nañ ay yoonu yoon man dund naa ay yoonu yoon nga dem ba am lim bi maanaam am dix-sept député wala am dix-huit député nga xëy suba rek ñu ne ñaar daal di lay bind ne bàyyi nañu ñoom dootuñu desee non inscrit donc yu mel noonu pour éviter ko dina tax nit ñi di jéem a góorgóorlu ñi nga xam ne ñoo bokk souche politique ñoo bokk idéologie wala bokk ñoo bokk yoon politique ñu mën a seet lu ñu dajaloo former lu dëgër soo xamee ne dina mën a résister et intention yi nga xamee ne dañ koy am pour di jënd ak di wëlbati député yi et d' autre part comme ni ma la waxee léegi boo xasee ba démissionné ci benn groupe parlementaire non inscrit rek ngay mujj a soo leen dajalee ñoom ñëpp ci benn groupe te ñu wér ni ñii bokkuñu ay option te bu ñu xoolee deux mille vingt quatre ku nekk si ñoom yaa ngi note de sa candidature parce que ni déjà lu bare xàjjale leen leen et pour des mesures de prudence pour dem ci li nga xam ne daal moo gën a moo gën a wóor te moo gën a méngoog responsabilité bu ñu war a am pour liggéeyal nit ñi pour mën a jox seen bopp doole ci assemblée nationale su ma doon ak ñoom damay bàyyi ku nekk mu daal di seet naka ñu mën a jege ak doole la ñu mën a am bu demee ba am lim bi boo am lu ci teg ñu mën a former groupe parlementaire pour sécuriser présence su opposition en tant que groupe constitué à l' assemblée nationale mu mën fa bare mën fa am doole mën fa jouer ay rôle. kon daal ba lim bu mun am ci wàllu groupe parlementaire war na mën a am ci assemblée bi. waaw war na ko a am daf ko war a sàkku il faut pas que tey jii que nit ñi Euh, commencé dugg ci débat boo xamee ne naan dañuy yokk dañuy yokk salaire yeeg nangam sangam wala dañuy yokk charge assemblée nationale yi déedéet du loolu parce que nit ki boo ko yebalee assemblée nationale yaa ngi sàkku si moom mu defal la liggéey donc bépp jumtukaay bu mu war a mën a jël assemblée nationale foqati ko ci pouvoir bi pour mën ko utiliser pour mën a def liggéeyam yow waroo ci am benn benn xaarma yàlla waroo ci am dara lu la naqari parce que tey jii bu ñu ko jululee day daal doon cër woo xamee day dem euh, nekk ci loxo pouvoir conséquent opposition bu am xel ca am maana da nga war a xam ni tey jii responsabilité la ci yow pour nga góorgóorlu am groupe parlementaire pour am ay minutes ay temps de parole maanaam bu ñu dee séddale kàddu yi nga mën ci am lu am solo loo xamee ne di nga mën a wax lu Sénégalais yi mën a dégg moo gën nga dem nekk ay non inscrit wala ngeen wéet ci benn roq boo xamee ni du ngeen am kàddu yu day du ngeen am cër du ngeen diriger benn commission te boo diriger wulee commission réalité bi fonctionner ci biir ministère yi nga xam ne moom nga yore ci biir commission doo ko xam boo nekkulee vice président doo mën a teew ca bureau ba ba xam nan la ñuy tër doo xam nan la stratégie di demee c'est extrêmement important qu'un député mën dem influer ci affaire yi des na nag groupe yi bu ñu taxawee ba pare ñu mën a dem ci réforme bu ñuy réformer règlement intérieur bi pour mën leen permettre ñu am plus de dignité plus d'équité et d'égalité en li nga xam ne